kon nag mooy fàttaliku mooy nekk tout tànk fii ci département de Foundiougne bu ñu doon wax waa Bassoul waa Djirnda ak mboolem ili dina gudd ma wax ko ba waa Niam Joroox yaakaar naa ni mbégte bu rëy laa am tey pour ñëw lancer leen travaux pont bu Foundiougne ànd ko ak république populaire bu Chine muy pont boo xam ne amul fii yëpp ci Afrique loolu nag yéen ko yàlla jagleel waaye ñëw naa aussi inauguré yoon wi nga xam ne mu ngi tàmbale woon Kër Waly Ndiaye jaar Passy dem Sokone mu doon yoon bu am solo ñu def ko ak l'Union européenne dinaa si ñëwaat léegi. kon mu mel ni fu ñuul tey jii désenclavement bi am na ba pare maanaam dem bi ak dikk bi nekk na lu sotti moo tax may nuyu d'abord monsieur le maire de Foundiougne moom yaramam dafa gaaw a tàng may xam naa mënoon naa ko sax abal opposition bi ba daañu am ku dëgër tuuti